partout maa ngi lay béggee euh, Yacine Pouy service digital yooyu tamit maa ngi lay kontaanee bu baax ah yor page Facebook RFM l'officiel gi di ah di fa def liggéey bu am solo di kontaan ci auditeurs yi déglu RFM 94 point 0 yéen ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye yaakaar naa ni euh, ajuma gi dama ñëw ba ci kaw euh, ñu teg seen sécurité ci bunt bi ne ma doo fi yegg si donc euh, yooyu il faut ñu bàyyi ci xel du ngeen ma wax ma ñëw ajjuma ba noppi ma ñëw ba yéeg ci kaw ñu téye ma fii ne ma doo fi yegg parce que kenn miinu la fi ajjuma donc loolu il faut ñu arrêté ko. waaw ah baan sa masque bi nga takk ak say verre ni pour la la. corona gee yokk non yéen da ngeen di baan da ngay jaxase nit ñeek ak àdduna. Ah. ankay munoo ñëw fii ñu mais balaa ngay takk nga wax ñu ne ñu nañ takk suñu masque ñu ñëpp dama leen wax de ñu takk mais yow ñëw ba man je ne comprends pas quoi takkuma de ayca ayca ayca mën ngaa nuyoo naa la xam ne ñun ñuy nga ñëw ba ci studio bi takk sa masque waaw ñu ne baan moo respecté corona man dong ko respecté di respecté wu leen ko de ñu oh, waaw wax moo tax ñu du pour loxo ah non mais non mais soo takk masque ka da amul sax masque mais respecté naa distance bi. ah distance sama digganteeg yow mat na deux mètres. sama ah, digganteeg abaab mat na deux mètres def revue de presse jërëjëf naa distance bi. waaw ah, man daal bàyyi leen wax sama masque. takkal waaw maanaam lu mu néew néew na ma ne sama digganteeg yow. waaw maa ngi sant ñëpp di di ziar ñëpp di wax ne ñëpp am jàmm. Hmm. waaw fan ngaa ñaan jàmm yow ak ñi fi xëy. Ah, waaw na ñëpp am jàmm. waaw na ñëpp am jàmm maa ngi leen ñaan ngeen am jàmm ñii déglu nañ am jàmm ñi déglu nañ am jàmm jërëngi jëf ne réew mépp am jàmm amin waaye nga xam ni euh, auditeurs yi ngay nax ak internet tekki sa masque bañ ne ëpp rek nga takk sa masque ne ah, non mais man waaye yow abaa sama takku masque du lu mu la metti non non mais dama xamul nga tekki ko ba heure wax rek heure wax rek nga nga ah. tagg sa masque kaw mais nga ne nit ñi lañ tak suñu dañu noor ba dañoo yaa ngi ni di wax di di di di di ki di jakarlo ak njaay rek te bu jakarlo ngi wax di lan fu na fu na ngay dugg ma ngi wax di lan abaa nak yaa ngi may commencé départ non yow lay laaj amaa soxna jaa ngi bëgg a de. maa ngi jaar Ndiaye maa ngi jaar ba wax xool kontaan la. sama sëriñ baa man nii la ma ko wax ne woon na ma na ma su ma paree ci ñoom duñ jaaroo taal. waaw maa ngi lay nuyu bu wax inspecteur. waaw maa ngi nuyu Aba. may rek ma jàll ci partenaires yi. laata kon ñuy sóobu ci xalaas bi. partenaires yi ñuy gunge ci xalaas dooree ko ak Laris Laris sérum américain la boo xam ne dañu koo liggéey jagleel leen ko ngir ñi nga xamante ne ji dañoo leel bëgg leel bi am karaw ñi nga xam ne dañuy yar karaw te karaw bi munta daanu wala karaw bi ni mu war a dundee du ni dundee euh, bu ñu utiliser laris lépp loo xamante ne ji bëgg nañu ko ci yarum karaw dinañ ko am li tax mooy euh, laris ni ñu ko defaree la ndax euh, ñi ngi ko defaree ba Amérique ci laboratoire nekk foofu noonu ay biochimiste daal di koy saytu bu baax a baax ba noppi produit la boo xam ne dañ ko enrichir ci wàllu biotine ñi nga xam ne ñoo yëngu ci karaw ak yu ne mel xam nañu ne biotine day lu essentiel ngir seen croissance su karaw Euh, sérum américain bii Laris ñu indi ko ci Sénégal amna feulé ci marché Sandaga lay cosmétique qui yoré exclusivité bi képp ku ci bëgg da ngay wo lay cosmétique ci 77. 656. Mhm. 98 77 656 98 benen partenaire ci xalas comptoir commercial de plomberie du Sénégal New York tu am un accessoire pex wala galva jaay la ko garantie garantie locale deux ans yamuñu ci ndax it euh, spécialiste sanitaire fi ci Sénégal comptoir commercial de plomberie du Sénégal comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñoy champion ci walu irrigation ñi yëngu ci mbay xam nañ bu baax a baax li wax ndax matériel yi ñu yor baax na na te it na mais également walu tuyauterie gaay yi liggéey BTP ak yena travaux yi bu ñu jëflante à comptoir commercial de plomberie du Sénégal lépp luñ ci bëgg dinañ ko ci amé également bu baax bi nak ñi ngi rue Valmy angle galande Diouf amnañu également place rue Floris angle Grasland wala rue Tolbiac angle Federbe comptoir commercial de plomberie du Sénégal 33 821 14 80 77 517 98 29 voilà, 77 401 55 69 Où est Solol, un partenaire modi établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère mhm. ñi fi indi vite fait bi ginnaaw bant bi lay dàqal ay yoo bàyyi la xet gu neex ginnaaw pompe euh, vite fait nga moo baax ci sedd bi baax ci yaram buy metti di delloo seeni muscule fu ñu jóge woon andi nañu pâte dentifrice vite fait pâte dentifrice vite fait ànd également ak brosse à dents vite fait lépp di ngëneel mm-hmm. Mm-hmm. établissement waa kër Serigne Touba Fall 77 555 11 11 77 696 34 67 voilà, 77 441 06 38 loolu mooy établissement waa kër Serigne Touba Fall Frère mi ci mi ci vite fait bi ayca ayca am na solo ban ni nga ni Simon Ansu Condé. awa lolé dé tok na sama kër di xalaas ngeen ni mo da ngay ñëw ma ñëw tak sama masque ngeen di kaas. <laughs> né man de bu dee dinaa waxaat ci masque yi nga tak ni ah, waaw yalla ma yalla suñu do dé baax dé ma ci waxat du ma ci waxaat ma ci waxat dé Ndiaye Imo Ansu Condé mi. ba hmm. do wut benn bo ci tekki muy sa masque wala say vert nga xool benn bo ci tekki. Ah, kayé yok ok kayé dafa yok té fu na ngeen di. wan nañ dem surtout Ndiaye mi nañ dem Simon Ansu Condé bi Ndiaye dafa joggé Guinée. doon ñëw Guinée xamu fi kenn ab benn sénégalais bu ne ko am naa sama benn mbokk bu nekk Sénégal maa ngi lay jox numéro soo demee nga wàcc fa mu wutal la néeg mm-hmm. mu woo kooku kooku ni ko kii munu fee wàcc parce que ma fu ma ko fat mun ko demal rek waa ji wàcc bureau boo marisé jox ko numéro ki ñu koy wax fii Sénégal di ko woo kooku jëlu ko parce que wax na leen ni leen munuma ko fat mm-hmm. mu woo ka ka ka ko ka ko yow ka ko jaadigéem ba ne Guinée sénégalais ba mun ko ki nga ma boolee maa ngi ko yow dina nga wutu jël mun ko jëlal taxi nga paas ma taximaan bi mu jël taxi mu paas ko taximaan bi waaja ne Guinée de kane Guinée xam ma jigéen loo xam ma tegtal ko tegtal di ko tegtal ba kër ba ci kër meer bi Guinée bi wàcc ñëw fëgg ko ni ko sa benn mbokk bu nekk Guinée moo ma booleeg yow nee na ma nekk fi ba keroog nga may wutal néeg mun ko pourtant waxoon naa ko ni ko aw ma fu ma la fat mais ginnaaw yes ñëw nga xaa ñu nga toog fi ñaar fan ñetti fan le temps ma lay wutal foo ne def mhm. waaye fat gam ko fat waa ji na fes ak doomu meer ba la ilaha illa bisaaw Guinée bi waaw Guinée Conakry rek defe na ah, mhm. déglul waaw problème bi daal nii la demee waa ji dafa am sama benn xaritu yaay boo xam muy frontière u Guinée foofu lay liggéey mu ngi tudd Saliou Diop moo ko boole ak suma yaay mu ngi ko boolee ak sama yaay samedi bu la passé la la euh, samedi bu la passé la ko booleeg moom bi mu fi ñëwee daal di mu daal di ñuy booleeg moom daan nañu kii damaa bëgg mu ñëw foofu wàcc ci yéen sama yaay ne ko munu fee nekk ndax man uma fu ma ko fu ma ko dalal ñu ko sama yaay ne munu fee nekk ndakate moom li muy woote yëpp moom tax oto bi taxaw na pour envoyé waaji mu envoyé waaji ba noppi bi mu envoyé waaji waaji wàcc bon maraîcher muy woo sama yaay ba sonn sama yaay faalewu ko léegi bu ko sama yaay bañee faale moom ci la ne waa ji jëlal taxi nga paas ma taximaan bi waa ji jël taxi paas ko taximaan bi mu daal di tegtal taximaan bi ba suñu kër taximaan bi mu indi waa ji ba suñu kër fëgg sama yaay ne ko kii de dañ koo booleeg yow waaye moom xamu fi déggul olof ki ko booleeg yow nag moo ma tegtal ba mu indi ko fii ci kër gi sama yaay daal di koy jël daal di koy fat ci kër gi nekk semaine bi yëpp di ko wutal néeg di ko wutal néeg samedi la fi ñëw sama yaay di ko wutal néeg ba àjjuma waat sama yaay doo ko amal néeg bi mu ko amalee néeg sawaay war a xëy vendredi pour dem rejoindre ci néeg bi ko sama yaay wutal léegi ci la xëy samedi daan ne moom dafa am benn parfum bu mu bëgg a jëndi sama yaay ne ko wóorul yow xamoo fi déggoo olof miinoo fi te FT Dakar ak couvre-feu yooyu fii wóorul xaaral ma boole laa ak sama doom bi ci la sama yaay boole ko ak suma rakk bi mu ànd pour sama rakk bi gunge ko mu dem jë jënd ji parfum bi bi mu ah, génnee ak suma rakk bi nag après ci lañ gëj a am nouvelle ci ñoom gëj a am nouvelle ci ñoom ba benn instant ay ñu woo leen sama rakk bi ne ñoom ñu ngi tëngee ci après ci la mel ne dañoo nangu téléphone sama rakk bi fay ko mënatuñ jot sama rakk bi moom waa ji ci boppam ñu koy woo di ko woo di ko woo mu ñuy coupé di ñu coupé suñ koy woo mu ñuy coupé nangu wuñoo wuyu yaa ngi dégg léegi bi ñu duggee nag ci sama nek man bi nga xam fa la ko sama yaay dalaloon ubbi ay bagage am pour vérifier ay kii mu ngi fi bàyyi benn téléphone boo xamante ne amul piis yaa ngi dégg ba pare écran bi dafa tuuru ba pare bàyyi fi valise bi ñu foogoon ne ay yére moo ci nekk valise bi ay affaire jalang yooyu ñuy fétiché moo ci nekk ñun ci lañu doog kon waa ji marabu la waaw après ci lañu woowaat suñu sama xaritu yaay bi nga xamante ni moo ko ak ñun moom mu ne xam ko da koo gis rek ci frontière gu Guinée bi mu ne ko moom Sénégal la jëm mu ne ko am naa sama jigéen bu ma lay booleel foofu pour boo demee mu wutal la néeg waaw léegi nag nii la affaire bi demee waa ji depuis samedi dem na ak suñu rakk dimanche ñu ko wër nañ fi ñu war a wër yëpp dimanche démb ci dimanche bi wër nañ leen di tey ñu ngi nii boobu ba léegi mënuñu fexe ba gis booy bi mënuñu fexe ba déggu ko sama rakk bi téléphone ba mu fayee ba léegi tàkkaatul waa ji nag moom day jékki-jékki di taal téléphone di xool ndax ñu dinañ ko woowam déet boo ko woowee bu la coupé rek day fayaat téléphone bi waaw ba mu yàgg mu dog ko taalaat xam naa di resté à ndax ñu ngi koy wëram déet nii la affaire bi demee waa ji nag mu ngi tudd Simon Ansou Condé waaw Simon Ansou konde la tudd léegi man dina en baye photo carte membre parce que bi mi joggé fofu ci sama ci sama xaritu yaay bi pour ñëw fii dafa waddal ben carte membre am carte membre bi nak touram mu ngi ci ak santam ak quartier bi mu dëkk ci Guinée lépp mu jël rejoindre ci néeg bi té néeg bi jënd na matlaa ak lépp jënd na matlaa ñaari matlaa mer gàddu pour dem ci néeg bi jënd na ko ba ba ba ba bëgg ba ba wara rejoindre ci néeg bi mais jëtu rejoindre sama rak bi nak mu ngi tuddu Mamadou Samba mu ngi dëkk yëmbal sidde quartier Afia 2 waaw mu ngi am vingt ans vingt ans la am âgé de vingt ans xala léegi doomu mère bi mu yóbbu jigéen la góor la mu yóbbaale ko waaw xam naa da koo gëlëmal nag parce que am vingt ans dëkk yëmbal euh, soo soo kenn du la mën a yóbbu ah léegi na xam luy problème bi waaw gis nga kii orienté waa ji ba mu dugg kër maire bi. waaw ka ne Guinée. xam nga bu luy xewee lu mu ciy jàppoo. Hmm. maa ngi jéggalu. maa ngi jéggalu ndax lu baax laa ci jubluwul. dafa yomb de. mais loolu la. daa yomb trop dañ ba nga sànq ñu taxaw fee naan la gëmal yàlla ak maa ngi. daa yomb de daa yomb trop. Ah, looloo nit yóbbu ko ci kër jàmm ba pare mooy li Njaay di wax. Ah. duma jaay bax ba sank sama bop duma def duma ko defal kenn maire bi bi mu bañé au début dafa wara ne rek kon ne bañ kon ne bañ parce que dafa melni jox tam waxon nako li non non c'est que sénégal nak masla ak bax mo ñu yaq fi mi ni rew mi masal ak bax fi mi ni dang koy njar mhm. njar ko <laughs> dang koy njar xol li fa la ngay def bu baaxa baaxa baax aba moy limay wax rek demé suñu xel rek ay dula sa joxtu mayul dal ay nga xamné yi ya ngi nan woor nam woorul waaw yow kii déggul wolof xaw fu mu jógee nga bëgg ko dugal wallaay baax bu ah? déggoon wolof it dugalee ca kër ga ba xëy xëy suba suppali jaan màtt leen yéen ñëpp loo leen di wax ama nañ waxante dëgg ah masque bee la neexul yaa ngi may xeelu waaye li ma dëgg la baan man dafa dafa mel dafa am loo ñu nëbb wala man dafa mel dafa am loo bëgg ñu gis ko wala ah. te baan sa kanam gi nga nëbb verre yi ñuul na nga teg si ay casque ba pare teg ci corona gi du gémmiñ gi rek ba ci bëti sax xullee bu rëy sax soo ko day def nit dem nga wàllu ko wóorul c'est que faaw ma photo la dugal mais kii ñi man damaa xalaat ni ñu ne ci suñu page Facebook bi ñoom ñu ngi gis baan wala déet. da ngay laaj bi ci topp wala. ah non bi ci topp mooy lan da ngay dindi sa da ngay am benn boo dindi. am nii nii laa nii laa ko mën a dóore ou bien ngeen bàyyi may toog sama kër corona gi dafa yokk abaa yéen yéen xanaa corona gi paa yi dee ak maire yi dee. fan yi xool distance bi baan xool distance bi distance bi sax wóolootuma ko nja abaa. ah amoo confiance kon amoo confiance ci yow surtout ci yow. <laughs> nga lan la wax. Ndiaye di ngay dégg bitim réew nit ñi naan sama doom tubaab bi du ko jël waaw Ndiaye déglul kii li moom. gis naa lu bari loo xamante ni doxaleen la boo xamante ni sénégalais ñu ngi koy doxalee. Europe euh, ngir xaalis. ay seede yu wóor laa ci am te soo ko bëggee mun nañ ci waxtaan. ma génneel la passeportu xale yi. ñeneen ak ñeneen. am na ci ñoo xamante ni dañu nekk fii jur seeni doom. jur seeni doom charge yi sonal leen ñu jël bagage doom yi. dem six heures du matin yóbbu leen ci euh, maison d'aide yi sociale yi bàyyi leen fa assistance sociale yi jël leen placé leen euh, sous de maisons euh, de kii ay maison de de garde xale boobu nga xamante ni lor nañu lor nañ ko ndaxte buñ ko jëlee ba muy am dix-huit ans ay waajuram mënuñu ko teg bët ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñu ngi ko fi def ba pare di ci wax di lay naan jël nañ sama doom sama doom dem na fii wala sama doom gisatu ma ko dafa am lu bari man li ma wax ni ay preuve laa la ciy tegal jox la ay tur te ci ay ñoo xamante ni ñu siiw xam Sénégal doomam yaa ngi fii ju def placé ci maison de garde yi assistante sociale li Lyon gii la nekk photo doom yeeg yëpp bu ngi ma yor à preuve à l'appui soo bëggee boo ma woowee ma jox la lépp envoyé la ko nga xool ko pour won na ke ni mbon gi ci bopp ñun ñoo koy jëmbat ñun ñoo bon suñu bonu bopp lépp ngir wut alal boo xamante ni ndax di ko fekkee des cas précis yoo xamante ni soo ko toppee ti euh, au pays boo ko toppee di nga dem ba gis njax teex bi nga laaj ñoo ñooñu ni leen ana xale yi ñun la xale yi kat nekkatuñ fi fu ñu nekk duñ la ko wax donc ça c'est des choses yoo xamante ni nit ñi war nañ ci xeex pour bu jeex daal Da fko den kofeyekou, da fsi don kofeyekou khales pou bari. Mou indifi ay don, mou dominek, mou djel khaleyi. 6 et di maten, djel en espanjou boulen vilyon. Baye lyen ki bountou, mezon, euh, dakeyi. Khaleyi nyo fornet fofou. Bilyen zo fore, la djel nyo renyo fisadni. Pese anjou boulen mwantey. xale yi ba léegi ñu ngi ci maison de kii yooyu yor bàyyi de renommée internationale nekk Sénégal lor leen ñu dem ci yar fër yaru tubaab pour te doon un aperçu rek boo moom waxee nag ñu gën a toog débatre ci loolu daal yéen rek lañ mën a jaarale yenn kàddu yi pour doomu aadama yi xam dëgg-dëgg li am ci réew mi ak li am feneen dangay gis ku ñëw nii la may doom mun naa la ko jox mun naa la yoral sama doom nga jël ko affaire yooyu parce que il pense aux aides yi ñu leen di jox nga xam nga jur doom ak ni mu neexee nga jur ko ci fàttali yàlla ak sunnas Muhammad ba mu neex la nga jël say doom jël fajar teel ay bagaasam nga dem ba ci centre d'accueil yi nga sànni ko fa dem sa yoon. donc les euh, agents sociaux yi dañuy obligé jël xale bi yóbbu ko ci dans des maisons de garde comme c'est mineur la duñ ko mën a sànni. duñ ko mën a yóbbu police duñ ko mën a rapatrier donc dañuy jël xale bi jël ko sous couvert. de l'Etat Fransè, pandan estan bou mwenè ki mwenè riep. Donkou, nyom, denyou degajou tout responsablite ti halebi. Benyè ti amate ben responsablite louni yo bou ekol, louni louni dapdara. Donkou, touba bi estan sosiali yer lèd koba halebi am 18 an. Hamwen halebo botey, bou magè, bou konè ki mwenè sa papa, wèle bonè kou ki mwenè sa yè, wèle bonè kou ki fin gèdè, bou amoulia toutè, ham lalè wak. Onda halebo sanè, bou mwenè am 11 an.

cas ñu noonu de am na ñu nekk bitim réew ñu ngi naan ma. Mm-hmm. Mm-hmm. phénomène bi. Mm-hmm. yàgg na fa. yàgg na fa. yàgg na fa. yàgg na fa jur doom ba pare soo xamee soo juree doo ko mën a yor nga bañ a jur jur doom ba pare jël ko yóbbu ko ci centre yi xale ba def dafa 18 ans màgg su fekkee yor jikkoy tubaab nekk tubaab daal man wala nekk wala la mu dëkk ba mu war a nekk. mu màgg nga bëgg koo récupérer mu lànk léegi bàyyi bi def boobu loolu wala yaay ji def loolu moom nen la wala xeer. est-ce que loolu ko laaj ñoom ñu ko def. mais est-ce ay problème mu bañ a am loo xam ne mën nañ cee yor seen i doom. ñu loolu leen di puus loolu day am lekk-lekk bu la leer ne xale bi boo ko téyee. Mm-hmm. maanaam nga sànq ko la gën a jege ci nga teral ko. Mm-hmm. fa nga yaakaar ne bu fa demee dana fa dana fa baaxe a ah, foofu ko yóbbu. est du dañ koy joxe pour mën ci am weccet. waaw loolu xam nga yeneen. kon loolu xam nga jaay sa doom la. waaw ah, loolu dam na am njaay la léegi xale loolu maa ngi doog xam li tax équipe nationale France bari nit ñu ñu ay waay ji déet waay baax ñun ah, <laughs> ah, <laughs> nit ñu ñu ku jur doom soo mënta dugal ci centre yooyu xale ba su màggee day day sentir boppam français français la français kon da nga bëgg wax kon ñu nekk équipe yëpp dañ dañ déedéet déedéet dama ne maa ngi doog xam li tax yéen dëkk du fara dëkk yooyu bari ay ñu ñu loolu la parce que te gis nga nag ab njaay tubaab bi ñu ngi leen di xas mais tubaab euh, bul tekki weer de bul tekki de. yaa ngi mel ni ah sonn kay. an kay yaa ngi koy non non yaa ngi tekk ka takk. tubaab ah commencé sonn. du gis xale bu bëggul xale bu sonn maanaam tubaab ni mu bëggee xale di toppatee xale ñun ñun fekkuñu ca. tubaab su fombee ab taale bi ci mbedd mi fii mu sonn loolu da gis ñun ñëpp koy romb. tubaab ba day caar jëm ko maye bong bong may ko ndox jéem a góorgóorlu jàpp jàppale ko mais ñu. déet déet réalité daa bokkul. Ah, lu leen wutale Sénégal fii da ngay gis mag mu nga xeetali ko yóbbu ko sa kër ci gëlëmal la mujjee ak yow. Mhm. ah baan ay tubaab tamit gis nga njaay tamit ay tubaab pare saa ñu romb xale may ko bong bong. bong bong euh, li nga ciy dégg du la neex de. waaw ah, d' d' accord ah. day day am mais de toute façon tey jii rarement nga gis tubaab bu jël doomam sànni ko da ngay gis mu gis ku jël tubaab tubaab bu jël doomam yóbbu ko jox ko ay nit ñu ñuul ban loolu moom fléau la bu am fii waa mais dama ni ndax mosuñu tubaab bu jël doom jox ko nit ku ñuul ko mënuma koo yor nit ku ñuul ñun ñu ñuul jël seen i tubaab seen i doom di ko jox ay tubaab naan mënuma koo yor loolu gàcce mënu koo weesu soo xamee ni mu soo juree doo ko yor nga bañ a jur ah déet mais jur moom bay koy tudd yàllaa koy tudd mais xam nga am na ñoo xam bëgg na fee am doom mu ko nit amun na fi bëgg bëggul doom ju judd mu judd kooku moom ci mbir yàlla la aju en tout cas daal Ndiaye li bëgg laaj moy fuñu jëm a couvre-feu bi. couvre-feu bi. yeen ñi ne ci gouvernement bi xana mën ngeen ci wax lu leer. kan ñan ñoo ne ci gouvernement mu neew ma neewuma ma leen maa ngi waaj a ah boba ta taxul. ko xana sa presse bi journaliste yi may wo pour ñu couvre ko ñoo ñëgul rek ñoom Ndiaye la jox pour mu kuy ba corne ko mail mu lank mais de man de man de ak information bi ma am. Hmm. ci walum corona bi hmm. ak ni mu lawé ci réew mi. Hmm. ak mag ñi mu nekk di leen sank di leen faat. kiis bu Sénégal gépp gépp gépp man de su ma amoon ndogal ci réew mi couvre-feu couvre-feu bi dama koy def national da pare def ko vingt deux heures ba pare bàyyi docteur ñu góor góorgóorlu di liggéey te askan wi ñu bàyyi xel ni feebar baa ngi rey nit ñu bare bare bare bare bare bare bare bare journalistes yi bàyyi ci seen waar bu baax. keroog ba doguma la euh, damaa dégg euh, El Hadj Mbaye Peex mhm. mu wax wax ju am solo. Mhm. Eh, bala ñuy sori <laughs> béykat daali waye ga waye galo daali waye galo. Eh. nee dafa réeral carte dante am mm-hmm. diggante Senelec ak stade de Lat Dior bu Thiès.